la koy fay nga ne loolu mënul nekk foo toog bu leen ko yóbbul GP nabu day sàcc bagage bu leen ko yóbbul GP GP bii moo gën moo nekk ngay wutal noonu bagage maa ko teg Sweden xanaa waxu la ko yow de maa la gën yow kooku nga naan nañ dem yóbbu GP ci moom moo ma gën le kooku maa ko jox këyit mu toog senegaal ndayam respecté ma ndeyam respecté ma teg ma sama palaas tey bu téyee nationalité man maa tax mu téye nationalité ni konoon mu ngi fii Sénégal kooku kooku kooku kooku buy wax ci suuf lay wax de na leer de xale boobu nga naan moom ngay wutal ay client di ma yàq laaj ko kana ko teg Suède su du man du GP tey nañ ko rafetal ku nekk liggéey te bàyyi yàqante bi te bàyyi fen yi ak jëw yi ak sos yi nañ rafetal àddina bi Suède moom yàq nga ko ba pare dootul baax barki Serigne Touba. Sweden moom yàq nga Sweden waaye waa Sweden ñoo manquant waa Sweden ñoo ñoo xamul fi ñuy teg seen tànk man kenn du yàqal sama nit kenn du ma yàqal sama nit man ay diw moo la wax lii diw moo la wax lii diw moo la wax lii diw moo jëw li diw moo la wax li man jëw ma kenn aw ma jotu jëw kenn man ambiance ambiance moom laay dund ambiance sol lu rafet lekk lu neex yor sama xaalis bi lu ma neex ma def ko yore lu ma kenn bor suidan ay waaye ana jeeg bu ne mës naa laa wane la lebal ma cent couronne ana jeeg bu may wane ma mës naa laa wax ne la lebal ma cinq cent couronne non non non non non loolu amut ñëwal maaleykum salaam ci loo nekk yaa ngi si jàmm segg nga café mën nga segg café si machine bi Anario yeewu na. wax am na ko. ana Augustin xoolal laaja Rio wala Augustin mu wan la ni ñuy seggi kafe ci machine bi da koy branché nga jël këyit bu chocolat boobu nga dugal ko ci biir nga tibb ñaari kuddu kafe nga def ko si nga taal bouton bi ci suuf mais da nga def ndox waxal Augustin mu wan la ko wala Rio dégg nga da ñëw pour defar fii. man nag dimanche su may génn sama néeg bi douche fi rek. léegi xam nga nooy def. douche bi rek nga may defaral man dimanche ma wàcc sama néeg tax man du ma liggéey dimanche. dimanche bi wàcc sama néeg douche bi rek nga may defaral. douche bi rek nga may defaral dégg nga. yow léegi defaral soo defaree douche bi sax demal man. su na duma liggéey dimanche moom bëgguma génn sama néeg bii duma fi wàcc sax sama jànq bi la ah. Hmm? su dootu daal ba ci kanam nga noppalu tey la dimanche. suba da ngay dem école de yéen senegal Sénégal yeewu leen gis nga nit kuy sos nit kuy sos da ngay xool gémmiñ gi nit kuy xo sos da ngay xool gémmiñ gi nit kuy sos da xool gémmiñ gi boo xoolee gémmiñam rekk di nga xam ndax kii dëgg lay wax wala day sos day dotom suy wax wax ki day dagg man because yaa ngi xalaat li nga war a fen yaa ngi xalaat loo war a wax gis nga wax wax wax waa Sénégal yeewu leen bu leen kenn nax ñi nekk Europe di live di saaga nit ñi di xas nit ñi lépp ay sos la dangay gis ku la woo léegi xas la ngeen jigoo mu woote naan waaw dama ko doon sosal rek man li ma waxoon du dëgg dama ne dee leen dugg ci laay fu ñu leen di wax ñu leen di reeloo dugg leen ci laay fu ñu leen di wa may jàmm moo gën gis nga nopp gaar mi day déglu day déglu di waxi gaar mi dee leen déglu waxi garmi dee leen déglu waxi nit ak wax bi leen di avancé loo waaye toog di yokk da di di yàq doomu aadama di wut ay vie toog di yàq doomu aadama di wut ay followers yàlla bu fekkee damaa nar a am followers ki yàq doomu aadama yàlla naa dee su dee damaa war a mump ay follow damaa soxla ay followers yow tamit man am naa ay clients samay clients xam nañ ma man su ma neexoon whatsapp rek laay dugal damay jaay man ñaw yu baax yi maa koy ñaw ñaw yu yomb yi maa koy ñaw samay maa am samay barki Serigne Touba Mbacke sama téyeer yaa ngi ne daaw ñu liggéey dimanche waaye tey sax dañuy liggéey dimanche ndax dama am ay ñaw am ay commande loolu mooy dog sa xol damay liggéey xam nga ne xaalis baa ngi dugg te duma la ci lebal xaalis bi moom mi ngi dugg te duma la ci lebal lu doy ni talafatab ay ni dërëm duma la ko lebal lépp moom jeex na lépp moom lépp jeex na fi de <laughs> moom dootoo fi neexle <laughs> booy xuloo da xuloo ku am taas ku taq ku tilim koo mën a xas waaye di xas koo xam ne yow li ngay wax it danga maîtriser woo ko man ku may saaga erreur ci erreur nga nekk man ku ma xam du xam doo ma saaga maa gën ci yéen de teraanga naa leen ji de waaye fayu leen ma ko de barki Serigne Touba Mbacke yéen ñi may saaga yëpp defal naa leen teraanga yéen ñi may saaga yëpp defal naa leen teraanga ay àddina yaa mën a wor àddina yaa mën a wor ay àddina yaa mën a wor ay man suma xamoon lii yéen ñi may xas ñépp defal naa leen teraanga yéen ñi may saaga ñépp defal naa leen teraanga ay àddina yaa mën a wor ay àddina moo mën a wor yéen ñi may xas ñépp defal naa leen teraanga fekk naa leen ci lëndëm ma dugal leen ci leer yéen ñi kontaan ñépp bégal naa leen même bu dee benn fan sax bégal naa leen ko ngeen di bëgg sama defet tey ngeen di bëgg ma daanu tey ngeen bëgg ma nërmeelu tey never ever barki Serigne Touba Mbacke laa leen waatal su dee man di ngeen ma gis ma daanu rek murit gi ma doon yàlla na xaaj ci man man man ca kaw ca kanam rek tànki ginnaaw aw ma tànki euh, tànki kanam aw ma tànki ginnaaw du ngeen mës a gis samay tànku ginnaaw jamais de la vie man suñu boroom moo ma teg loxo ndax nag nag sama liggéey dara nag de liggéey naa dara de liggéey naa dara waaw musumaa toog internet di saaga doomu aadama musumaa toog ci internet bi di xaawi sutura doomu aadama musumaa toog internet bi di yàq doomu aadama musumaa yónnee ay audio di saaga doomu aadama musumaa yónnee ay di xas doomu aadama musumaa yàq gor ee eh, comédie yi may def nii amul kenn ku mu teree nelaw amul kenn ku ma comédie mu tere nelaw comédie laay def de su ma neexee léegi arrêté ko su ma neexee léegi stop maa moom sama bopp dangaa mën a tooñ ana tooñ bi yow kay yaa mën a tooñ yow mi saaga jëkkëru jàmbur yi di xas jëkkëru jàmbur yi di saaga kilifa yi di xas kilifa yi su ne damaa nga sangu tey la lu leer laa leen wax nag yi nga xam ni saaga na kilifa diine keroog ba nga ñëwee murit ne la doo fi dugg xew de moo amoon xew mu ñëw ci xew yi murit yi jóg dem lal seeni basang lu mu yàkkul murit yi amut duma ko fàtte mukk bëgguñu góor jigéen yow ñëw nga ci xew bi ñoom gis nañ la ci xew bi ñoom jóg nañ dem loo leen yekkul amul yow faroo fenn yow toroxal nga ku nekk si widan yow tiktok bi nga nekk nii li ngay def ci kaw li ngay def ci suuf moo ko raw tas ay kër yàq ay famille tasaare ay famille tasaare mag ak rakk yàq mag ak rakk yàq jëkkër ak jabar yàq yaay ak doom boo deewee la du sotti essence tàll rek lu ma la yow boo deeyee dañ lay lakk par force ala doole mbaar ndax yow suuf suñ la suul suuf si mooy sulleeku xale yi ngay xas xale traversé yi ngay xas ñoom dañu ngi traversé tubaab yi ñu leen di gis ñu leen di bëgg waaw ndax soo wootee ni góor jigéen nga bu la neexee nga am far am nga ci droit bu la neexee nga am jëkkër yow de doo am jëkkër yow de jëkkër doo ko am jëkkër moom danga koy dégg rek yaa ko waxal sa bopp jëkkër moom da nga koy dégg rek waaw yow ba nga fi xasee eh, eh, xale bu jigéen bi bëggumaa turu ba bëggumaa turu tudd kenn nag xale bu jigéen bi nga fi takk woon taxawal barki démb di ko saaga fii Sénégal xale bu jigéen bi ñu tudd ko naan ko sa vente privée bi du dem ci kanam sa nangam sa kooku dafa laa raw kooku daf la raw kooku yéen a ngi koy xas mu ngi avancé yéen a ngi koy yàq mi ngi avancé yéen a ngi wax lu bon mi ngi avancé yéen xanaa gisuleen leen yàlla dafa baax suñu borom booy xas nit da koy da koy yëkkati booy xas gor da koy gën a yëkkati booy saaga nit da koy gën a yëkkati yow ñu ngi fi saaga woon ñëpp avancé ñëpp avancé ñëpp dem ci kanam avancé avancé avancé ñëpp avancé yow ngay dellu ginnaaw bala may dee mu naan sama nationalité laa yor ana nationalité doo ko génne nga wan ko dëkk bi dama ne suuna ana sama passeport bi ana sama pochette nationalité boo koy wane nii nga koy wanee ana sama bi mbooloo mi booy wane nationalité nii nga koy wanee su na sama passeport bi ana mu fii nga ko déggoon ma xool fii ma xool mbaadu mbaadu bi ci guddi gi ndax ginne la àtt naa ñëw luxus sama passeport bi ndax ah, man dama koo ragal fi nekk nii ak ay bëñam suuna mi ngi ne dox booy wane nationalité nii ngay wane nationalité mbooloo mi du nee na am na nationalité sooy wane nationalité nii nga koy wanee lii du sama photo man sama ñaawaay bi lii damay ba TikTok bloqué ma lii du sama photo lii du sama photo lii du sama photo Nabou GP Nabou Couture lii du sama foto gis ngeen dama leen koy rombale rek ngeen gis ko na ko wanee nii ñu gis kanam gi waaw mi ngi nii lii mooy picc yi picc yi boo ko picc yaa ngi nii picc yi boo ko wanewul rek bokk ko picc yaa ngi nii mooy naawal demoon fu la neex gis nga civilisé bu ñu lay joxal nationalité ay picc lañ lay defar gis nga picc yi gis nga picc yi lii mooy naawal demoon fu la neex jox nañ la këyit defoo fi waxoo fi lu ñaaw lu lay xoole ba pare takkal la ceen jox la bukk gis nga ko nii waaye boo nekkee Suède di jaxase di rëbbëj di saaga nit ñi di xas nit ñi di sosal nit ñi mi ngi nii samay stampay ngi nii bërki démb rek bi may dem Casamance tampe baa ngi nii damaa mer sax ne leen lu tax ngeen di tampe sama passeport bi sama passeport bi ngeen di tampe day gaaw a jeex mu ngi nii tampe yu baree ci nekk ngeen baal ma gis ngeen ko nii baal leen ma ma cof ko rek bala ñu maa bloqué waaw waaye dem abbi ay kii yu jàmbur naan ni mi ngi nii di wane mu sori mu sori mu ngi nii am naa na sa amoo dara man li may wax GPS bien mais moo amoo dara nit ku bon du am lii nit ku bon du am lii gis nga lii ñi ko amul ñëpp mooy nit ñi nga xam ne dañoo bon dañoo méchant man samay sët sax dañ koy am par force ñu ngi nii lii sama maa ngi nekk sama kanam ma mel ni jaaykatu jën maa ngi nii gis ngeen ma nii gis ngeen ma nii maa ngi nii je suis gis ngeen ma nii maa ngi nii génneel ñëpp xàmmee nañ la maa ngi nii ñaari photo lay am an mooy problème bi eh maa ko liggéey de maa ñëw siwi dan nag boole pat ak organisé nga ne mosuma liggéey ci dëkk bi ah sama nday estati doom su <coughs> <coughs> <coughs> suuna jox ma sama tàngal bi tàngal bi ak a baax gis ngeen tàngal bi kuy ñëw sa Afrika boo ko jëndee yéen ñuy jóge Suède gën leen ko ka la am xam nga Afrika boo fi ñëwee léeg-léeg poussière bi day jàpp sa baat bi gis ngeen nii soo sëqatee rek boo ko naan dangay gis salam bi yëpp day génn ma may la sëlmul ba pare raxas sa loxo yi bala maa dee ma naa lu jéggi am am naa ko amoo dara foofu nga nekk da nga koo luye yow barki démb nga tëxu te foofu nga nekk su ma nee la fa génnaat di nga fa génnaat man maa la ko wax. foofu nga nekk danga fay génnaat nu mu gën a gaawee su ma la ko waxee rek gëm ma. eh jéggi dañuy guddee wàcc. jéegu Suède ñi ngay saaga ñoo la tane ñoo la raw yow daal fi mu nekk nii tuddal ñépp ñi ngay tudd faale wuñ la xasal ñépp ñi ngay xas faale wuñ la waaw samay doom faale wuñ la nga bu njëkk ba dañ ma daan wax naan ma yaay bàyyi ko bàyyi ko dangaa dégg ñu woo ma ñoo gën a gis ne maa ngi live maa ngi lay cot woowuñu ma lijjantiwuñ ma waaw yow dangay gën a yokkal sa bopp ay noon rek yow suy da ñetti nit doog nga fa dese ñetti nit nga fa dese sa boolekat boobu moom nga fa dese ñoom nga fa dese yéen ñi ànd yëpp mën ngeen a ànd yow ñi ngay àndal mën ngeen a ànd ñoom ndax da ngeen a soxor kurub soxor ngeen da a iñaan bëggu leen ku dem ci kanam yow yaag ñi ngay àndal a yam yaag ñi ngay fréquenté yéen a yam baaxu leen guddi baaxu leen bëccëg waaw fu ngeen dëkk ba ba ba ñu xam leen ngeen dëkk fa ca des te bu ngeen moytuwul di dee bu ñaaw ngeen di dee barke Serigne Touba dee bu ñaaw yéen yi ànd yéen sax kenn rafetul yéen ñëpp a ñaaw. suuna tàngal loo di sa kanam gi <coughs> loo di sa kanam gi nii. xam nga lan laa la yëgal du ma sa moroom suuna wax naa la ko de dangaa gis Xadija di def nii rek ngay def nii